ma la bor man en tant que personne mais état bi ma nekk moo la ameel bor ça veut résime bi fi jógee ameel na bor ñu war a fay bor yooyu nga xamee ni ñi fi jógee ñoom ñoo ko fi bàyyi ci lu jëm ci secteur bu ne ñu ne la agriculteurs yi producteurs yi euh, régime bële amel na leen boru nangam mais laata may fay bor dinaa xool ndegam dëgg la ndegam lañ la war a fay effectivement loolu lañ la war a fay xool ñan laa war a fay ak ci mbirum fay boobu nan laa ko war a defee ci wàllu mécanisme parce que euh, premier ministre bi muy wax waxul ministre de l' agriculture fay fay euh, euh, fayal bor yi ministre de l' agriculture parce que du moom mooy fay yorewul xaalis bu mu fayee daf ko ne da ngay ànd ak ministère bi ñu denk wàllu finance ak mbirum gaf ak réew mi ngeen xool ñañu ameel la fa nekk ci kees bi lañ leen ci war a fay. ñu fay leen ko le ministre hier a rappelé dafa woo waa waa euh, ay ay média wala média yi woo ko. pour lan parce que dañu dañuy saytu information. jot nañu xibaar faw ñu saytu ko. Mm-hmm. pour saytu ko nag da ngay dem ci source bi source bi ne leen mais la ngeen di wax tegul ci yoon naa man ci suñu ñun gouvernement. fukk ak ñeenti milliards bërki démboo Njaay ci àjjuma ji léegi la la des am na lu ñuy saytu mais tey source a bind na loo xamee ni loolu yenu na maanaam mooy on te dit l'État n'a certifié que dix-neuf milliards de dettes aux opérateurs agricoles ñoom ils disent que dañ leen amel quarante et un milliards waaye yow état nga ne man dix-neuf milliards laa la amel yow producteur bi nga ne noonoo non nga ñu quarante en un milliards duñ ne teg nañ taxaw kii nee na man nii laa ko ameel te man gis naa ni wala ci la ma saytu lii laa leen ameel mais du ma fayagum damay taxaw même koo xamee ne leer na kii amel naa ko cent dama ko naan taxawal nga ma may ma tuuti parce que keneen ak keneen ñëw taxaw rang ne ni déedéet man tamit danga maa ameel faw ma dakkal lépp ba xam ñaata laa ameel ñépp ku ci am koo xamee ni waroo ci sax am ma segg la. doog a continuer fay bi waaye ka joxe 14 milliards parce que jàpp na 19 milliards la keneen ñëw ne ko 41 milliards nga ñu amel mais l'État de manière responsable également dafa war a taxaw ne ni joxe naa ba noppi li si des nañ ko waxtaanee rapidement pour ñu xool kan laa amel ak kan laa amelul ak yéen li ngeen di wax parce que li euh, euh, source a wax ça veut dire que am na problème bu am ñu ne les calculettes am nañ défaut. ndax am na ñoo xamee ni nee nañu amel li ñu leen amel moo ëpp te état nee na gisul loolu mais état bu responsable du taxaw donte joxeegum na quatorze milliards mais c'est déjà quelque chose léegi ñi stress mais lépp nañ koy waxtaanee il faut pas qu'on chaque fois à dire non il faut qu'on s'oppose il faut qu'on sorte les il faut que ñu wut gàkk bu ñu bu ñu teg si ñoo xamee ñu ngi doog a wax dëgg fa neex yàlla c'est pas une question de euh, c'est vrai lanceur d'alerte euh, donner la bonne information c'est bien mais tamit joxe ko ci à temps aussi ak moment ba nga ko war a joxe mhm. la bonne information mooy lan qu'il y a des gens qui disent qu'on leur doit beaucoup plus mhm. que l'État sarc-boute ne ni man lii laa leen amel mhm. mais bu loolu amee mais dañuy taxaw saytu ko tëjee secteur yëpp daanaka mooy mooy metti campagne agricole bi lañu nekk di di euh, wàcc jamono ji ak conseil interministériel bi nga xam ne premier ministre def na ko mais déjà le débat mi ngi jëm si boox yi nga xam ne état bu Sénégal amal na ko yenn si opérateurs yi ci campagne agricole yi ñu weesu waaw euh, damay dem rek ci xam nga li may déplorer ci ministre bi rek mooy euh, dafa nekk ci genre punchline ak l'observateur et il devait le faire parce que moom dafa nekk ci gouvernement te gouvernement bi aussi dañu am cellule de communication yu mel nii bu génnee c'est pas la peine que le lendemain automatiquement ngay répondre il faut de façon très posée et de façon responsable parce que yi fi daan am buggatuñ ko gouvernement boo xam ne dañuy ñëw rek di tontu ci ay tont yoo xam ne ëllëg si biir boo demee ci profondeur ba yow la ngay tontu ak réellement existence ba du benn mënoon na bàyyi cellule de communication présidence wala cellule de communication bi nga xam ne moo nekk ci ministère am ñu ñu ñu def benn communiqué informé ne que lii la ñu fay parce que sànq ci biir wax maa ngi dégg Senghor mu ne am na lépp loo xam ne kenn du ko wax gis nga man li ma gëm ci réew man gëwuma secret d'état man gëwuma ko man secret d'état benn rek laa ci xam muy armement loolu laa xam ci secrétaire mais alalu réew mii l'argent du contribuable département ministériel bu nekk ku ci nekk la nga ca yor da nga ko war a saytu leeral ko ba nit ñi xam ko xaalisu réew mi la de Sénégalais te pay dañ lay fay loger la nourrir la blanchir la jox la suñuy clim jox la suñuy oto di la fay salaire boo xam ne ñun ñii la ñun ñun ñi moom réew mi am amuñu ko Donc tu as droit à nous donner des bonnes informations pour tout ce que tu fais. Mais le, pas... Le de la mais ça fait six mois. donc, on, mais beaucoup d'informations, donc on dans la cacophonie.